mbër gàlle yaay yaay mbër gàlle yaay yaay su guddee fooy yaay mbër gàlle yaay mbër fanaan pour yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb kon ni ma ko waxee rek suñu gaal 24 tey nag euh, kii Babacar Diome tey ñu fas yéene waxtaan moom ndax gis nañ euh, tey ki ñu seet si muy géotechnique dafa bëgg dafa duwal candidature am pour jiite li nga xam te moom mooy CNG gis nañ Kéba Kanté gis nañ Tyson et tant d'autres bari nañ euh, loolu lan nga ci wax ba pare. maa ngi lay nuyu Fatma Dia di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre ci Sunugal 24 ah ak fi nga xam ne moom mooy Wasaare TV bu ñu nee Sunugal nag suñu xelal suñu xel day dem ci suñu frère. Jaw euh, Fara ah, ma koy bëggee bu baax a baax di nuyu tamit waa Wasaare ma yow Bachir ak am mooy jili ak équipe bi nekk yëpp di nuyu sama rakk ji Thier waaw loolu nga laaj moom maanaam CNC lañ ne le 30 octobre euh, ki nga xam ne nii moom moo di. docteur Alioune Sarr mandaam day jeex te bu jeexee jàpp nañ na xëy na ci li ñuy am comme ay xibaar du ñu ko renouveler waat bu ñu ko bu fekkee ne bu fi nekkaat kon defe naa il faut que am ngi dégg moo tax nag ñu ñu dégg ay tur boobu na moom jàpp na ne mën na koo jiite Tyson moom waxul ne mën naa jiite mais nit ñee koy tudd mais moom tamit nekkoon mbër tey mu ñu jëngutu ci na ko bi du déposer candidature parce que amul élection il faut ñu fàttali que ni mbirum arrêté la arrêté ministériel la arrêté bi nag kenn la muy ki nga xam ne moom mooy ministre des sports Matar Ba moom mooy xool ki nga xam ne nii jàpp nañ ne war na mën a jiite làmb ji yaa ngi dégg mais it terewu ko bu ko neexee am na droit waxtaan ak waa làmb ñu waxtaan ci biirub néeg xool ki ñu jàpp wala équipe bi ñu jàpp ne ñoom suñu leen fi tegee dinañ def lu raw li fi Alioune Sarr defoon parce que ak lu ñu la mënta wax tamit Alioune Sarr am na liggéey bu mucc ay bu mu fi def dafa fekk ne nag ko wax daanu dajul suuf yaa ngi dégg lu ma la wax mënu yàlla mi ñu moom sax defe naa ne deful lépp lépp lépp lépp lépp yaa ngi dégg i faut nit ki am lu mu def jéem ay effort pour mën a am dara kon yaakaar naa mbir mi noonu la deme mais lu ci am daal ñun li ñuy ñaan en tant que ay sénégalais en tant que ay nitu làmb dañuy ñaan yàlla daal kii jiite ëllëg làmb ji mu nekk ko nga xam ne nii daal kii gën ci waa làmb lay doon yaa ngi dégg loolu la ñuy ñaan quoi. tey làmb ñu bari dañ ko doon euh, li nga xamante ni di ko diingat tey ñu dem ba benn instant gis ni làmb euh, bari na coow kenn ku nekk muy ñëw ne dafa bëgg a euh, jiite làmb loolu nan nga koo déggee ak noo ko gisee waaw am nañ si droit parce que c'est des sénégalais yu dëkk ci réew mi du dund làmb de ay doomu sénégal te làmb di suñu cosaan du basket du volleyball du handball du football sport national la lu ñu moom kon defe naa sénégalais bu ne am nga droit taxaw ne nañ ma jox ma jiite làmb ji waaye nag laaj na nañ ma jox ma jiite na fekk yow mu méngoog ne yow la ngay laaj leer na lii bu ñu la ko joxee nga doxal ko mais tamit bu la bëgg a wax nii rek wala bëgg a di laaj non man Babacar su ma amee yàqin ci sama bopp mu wóor ma ne li ñuy joxe man naa ko jiite ah am naa capacité yi am naa niveau bi am naa droit ne nañ mën naa ko jiite yaa ngi dégg waaye nag. du question que ni damay wax rek ne mën naa ko ci te mu leer ma ne man aw ma compétence bi aw li nga xam ne personnalité bi wala nangam yooyu yëpp dafa jar bàyyi xel ba nga xam ne nii daal euh, mën a man a nag boo gis da wóor da ngay bàyyi moom bañ ne na yow la loolu dafay gën a wóor waaw. beneen bi mooy ñu gis ni coow li nga xam te ne moom moo am suñu papa Gaston ak Gris Bordeaux ndax ñëpp xam nañu ne Balla Gaye ak Gris Bordeaux taxawoon na ba léegi mën nañoo jàpp taxaw na ñu gis. fan yi wax ji ñi naan combat bi dina am wala du am ay problème yi 10 millions avance bi na dem mais loolu yow nan nga ko gisee euh, làmb ji parce que tijjeegul di ñang daan mbas mi mais dafa bari coow. waa xam nga làmb ji tijjeegul waaye promoteurs yi nga xam dañu jël seen xaalis di ko yi pour man ñooñu dañ leen di jaajëfal ak promoteurs yi joxe woon te jotu ñoo tëgg seen i journée parce que promoteur dama naan moom jikko baykat lay yore quoi parce que mooy baykat mooy koo xam ne day ruuj faru di xaar yàlla taw ngir mu bay yaa ngi dégg ci promoteur noonu lay def jël xaalisam jox ko mbër di xaar di xaar saison ubbi wala ñu jàppal ko date même bu dul corona bi promoteur yàgg day joxe xaalisam di xaar date di xaar nanga te ci diggante bi lu ne mën na fi am diggante bi nag mbas mi ñëw na affaire combat yi taxaw am ay promoteurs yoo xam ne yu mel ni Gaston bi ay Pape Thialis Faye ay Baba Diaw Thiam production ak yeneen promoteurs yoo xam ne jël nañu ay avance jox ko ay mbër yaa ngi def fas yéeneen bëreloo bari na ci ay promoteur ay ñoom Dieye Sène Fallou Ndiaye bari na ci mais nag loolu su amee defe naa ne ah li ñuy dañuy yaakaar parce que ab jaam yaakaar la am ngi dégg ab jaam yaakaar ci ñaan boromam pour di ñaan yàlla mbas mi jeex ba ñu mën a bëri mais bu dee ci diggante Gaston Giri la damay wax ne ñoom ñaar ñëpp ku ci ne kilifa nga si làmb parce que li tax mooy Gaston su ma jumul la ñëw ci làmb comme promoteur Giri Bordeaux ñëw ci làmb comme kon ñoo bokk carrière ñoo bokk sénération ci côté boobu kon yaakaar naa nag te giri gason tëggu ko benn yoon yaa ngi dégg Gaston tëggul Gris benn yoon kon defe naa tey li leen liyee yaakaar naa nekkul problème boo xam ne nii bu war a mën a garaaw la boo xam ne war na yegg fenn fi li ci am solo daal mooy ñoom ñi ko séq nañu waxtaan rafetal soo mi duggee ko marché xool li mën a ne ñu def ko li mënta ne ñu bàyyi ko parce que olof ne na ànd ñaar a koy yàq santaane lees man ñu bañ ko ak tege lees manu booy santaane da ngay santaane lu ñu mën waaye booy bañit da ngay bañ loo mën a lu la leer ne lii attanoo ko loolu moo ci nekk. ñaan na ko yàlla combat bi tey bis bu yàqoon Balla Gaye ñu ngi doon dox combat am ak Boy Niang Papa Gaston ñëw décroché loolu mais combat bi bu yàqoo Balla Gaye ñan ñooy ay adversaire potentiel am ñan war a mën a bëree. Balla waaw luy adversaire bu fekkee combat bi dafa yàqu waaw non dama naan foofu man damay ñaan yàlla mu bañ a yàqu man loolu laay ñaan ba pare parce que Balla Giri ku ne joxe nga sa kàddu ñi leen yilif joxe kàddu kon defe naa Gaston may tëgg bëgg na am na lu mu jot a génne gan man Babacar damay ñaan yàlla daal combat bi am ñu mën ko bëree mu jeex quoi waaye nag bu fekkente ne dañ ne daa yàqu te man yàqu gën a lu ma ah Balla Gaye am na yeneen adversaire Eumeu Sène a ngi fi Bombardier ngi fi ñoo ñëpp dafa bëri ak ñoom waaw te ku ci ne da nga ko daan na bëri ak ñoom ay ramas parce que defe naan làmb ku la daan di nga bëgg a mais nag maa ngi ñaan encore une fois que ni combat mag Gris Bordeaux ak Balla bañ a yàqu mu réussir quoi waaw le 31 octobre la ñuy éliw mais instant bi yow Babacar nan nga gis làmb est-ce que am nga yaakaar tey saison bu ci géej di nga gis ay changement yoo xamante ni yoo xamante ni da nga naan non est-ce que lii làmb la est-ce que am nga waaw non am nañ ci yàqin changement moom du mën a ñàkk a am parce que li tax changement di am at mu ne ak la cay xew bés bu nekk ak la cay xew moo tax ba nga xam ne li amoon daaw ak lii am ren du doon benn dañuy ñaan yàlla nag li am lii am li am ni suñu kanam yal na dàqali fi jaaroon lépp barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam que li tax ñu wax loolu mooy que ni am nañ yàqin que ni parce que combat yi nañ gis muy taxawee ak ambition yi promoteurs yi am ak ñi demoon dikk gis nañ ay GFM dellu siwaat yaa dégg gis nañ Equivox su Arena gis nañ Gaston ba dikkaat Pape Thialis Faye dikkaat yooyu yëpp buñ ko boolee yaakaar naa war nañu am yàqin ne saison bi dina gën a neex bokk ba boole ceeg nag ñi fi nekkoon nga xam ne ñoom it ba tey ñu ngi def effort yaa ngi dégg kon defe naa loolu boo ko boole ak itam yàlla ma def balay boobu ci diggante bi équipe bu CNG bi bu changé ñu yaakaar na kon loolu lépp su amee nag dina gën a tax làmb am beneen alir gën a mën a jóg jëm si kaw quoi waaw. cant ngërëm ñeel na la yow chaque jour bu la dekkee suñu micro dañ ciy wax yéene ak lépp rek pour bëgg waa gars yi kontaan en parce que on est ensemble ñoo far yaa ngi dégg ñu bokkuteen ñooy laxasoo goj yaa ngi dégg te olof fi tax xat yi ñoo bokk ndey parce que la leen boole mooy yeel ba ñoo bokk bi yeel kon ñun ñoo bokk li ñuy liggéey ñoo bokk métier bi yow tamit ngay suñu jigéen suñu rakk di borom baax mais di nuyu internet yi eh, wasaare yëpp ak internet yi Sunugal 24 yi xam nga di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm xam nga coronavirus bi nga xam ne moo tukkal àddina la jël ñu lëcc yàlla na ko yàlla tënk sànni ko ca àll ba yàlla na ko fi nawet bi bañ a bàyyi yóbbaale ko ñaan yàlla gàmmu gi ñu jëm màggal Touba ak yenn xew yi nekk ci kanam yëpp yàlla nañ ko fekkee te tal ko passé ko si jàmm mu jeex si jàmm mais encore une fois rek di nuyu ñëpp ñi nga xam ne tey dégg nañ leen ci ñuy wax waxu jiite CNG yàlla ay sénégalais lañ comme ni ma waxoon sànq am nañ si droit te mbërgàlle yaay su guddee fooy fanaan mbërgàlle yaay mbërgàlle yaay mbërgàlle yaay